nga nekk ci sa euh, troisième mandat. Mhm. assemblée. honorable mhm. lan moo la mhm. may loolu. Ah, sant yàlla rek sant waa Ranérou parce que nag trois mandats quand boo amee ñaari mandat rek yu tegaloo may nañ la ci sa duuri diiru dund sa réew yoroon na la njukkal. am nga retraite parlementaire. mais am naa ñetti mandat maa ngi ci sant suñ borom di ci sant sumay waajur waaye di ci sant gox bi nga xam ne fa laa bokk muy Ranérou Ferlo ndax trois mandats yëpp dewuma liste national liste départementale laay dem dem battre campagne gagné boo bu ñu la fa ëppee benn carte da ngay perte boo ëppalee benn carte da ngay jàll kon bu ma fa amee ñetti mandat damay sant waa Ranérou la les responsables yi fa nekk ndaw ñi fa nekk jigéen ñi fa nekk mag ñi fa nekk sëriñ yi fa nekk shérif yi fa nekk ñi fa nekk yépp ñoom ñoo ma may ñetti mandat yooyu maa ngi leen di sant ñoo la defal loolu leen defal en sant yàlla am nga boo delloo loolu laajoon ko waa raneeru ci lay tontu bi parce que lu ma fex comme kenn du weddi <laughs> boo defoon micro territoire dem tey Ranéeru laaj leen fi ñu fekkoon forage yi bi may ñëw 2012 sept forage lañ am bi bi Macky Sall di jeexal am nañ 58 forage liñ fa jot a am ci ay ay ay école ak ay euh, euh, euh, liggéeyu xëyu ndaw ñi amu fa woon li ñu fa jot a am ci ay case de santé li ñu fa jot a am ci ay piste de piste de production mhm. maanaam boo buggee dem dem ñëwaat mhm. donc boo xoolee tey électrification rurale maanaam li ñu fa des ci wàllu solaire yi dëkk yi nga xam ne am nañ fi tey courant loolu yëpp mhm. donte la motlewul mais li fa am xaaj bi amu fa woon ci wàllu euh, aliment de bétail ci wàllu euh, vaccin yi ci wàllu jur gi ci wàllu nit ñi lépp am na lu ci président Macky Sall jéego bu mu ci teg boo xam ne amu fu woon. wax dëgg yàlla. macha allah.